bu ñaareel ñun ko wax maqaama xulwaaniya li ñuy wax istiaara ci bayaan moom la ciy jàngale waaye dafa teg nag ci yoonu imtihaan wooyu waral coow la bañ soxla imtihaan ak woy wa ñooy imtihaan ak kañoo nattu woy yëm génne yooyu mooy maqaama bi loolu la ciy wane mu ne hakkaa nettali na alxaarisu xaaris ibnu hammaam qaal mu ne kaliftu soppoon naa mus mii tat waxtu wa dañaleesee xam ni ci man attamaa imu ay buukal mooy gàllay ñoo takkal guri ba ma demee ba takkatuma gàllay ndax suma mage xàgg na ci takkatuma ko wani satti hajees biyee ci man alama imu ay kaala hmm. ma xàgg ci de kaalawu hmm. ba ma demee daal bëri sama magam bopp moo xam ne suiveur dara da ca xel hmm. jot na ci man dama soppoon bi an ak saa ci may dikkal maanal adabi barabi adabi dama daan taamu daal di dem ci barabi xam-xam yi bu undiya may songom loo ilayhi jëm ci maanul adab rikaaba talabi gawari sàkku yi ma daan toggoo ay coono yu bari ndég rek xam ci cër daan dox lu sore sore sori ndég fekk jota yoo xam-xam wala ma dox jamono bu sedde sedde ndég fekk jota yoo xam-xam wala ma génn jamono bu tàng tàng luy mm-hmm. fekkee jotaay xam-xam woon di yette may soogoon loo ilayhi jëm ci moom rikaaba talab yi ga wari sàkku mm-hmm. daan naa ci yu xam ne teg la ne na jaral na ma lu bëri li mm-hmm. alaqa ngir naa haju min hu adab bi ma ci lu xam ne yëkkoonu dana mu nekk lii ñaal masinatan de taar baynal anami ci diggante nit ñi mm-hmm. wa mus tante de niir mm-hmm. indal uwaami fa mar mm-hmm. ndég nañ xam cër boo xam ne sama nitee dana ci sottee nañ xam cër boo xam ne itam su ma bëgg a jëriñu ci xam-xam dana xam waaye li alaqa ngir naa xajoo mi ngir naa xajoo mi nu ci adab ma ci lu ne yëkkoon dana mu nekk lii ñaxal ma zinatan de taar beneen anam ci diggante mbindeef yi walla nit ñi wa mos na tante de niir indal uwaam famar wa kuntu nekkoon naa li fartillaha ji ngir jéggi dayoog cofel hmm. bixtibaasihi ci juumu adab hmm. watamee ak xemem fi taqam muf libasi hmm. ci mbuboo ay koddayam bu hmm. baaxi su de gëstuwanteet kulla man képp ku xam ne jalla màgg na hmm. wa qalla ak képp ku tuuti jalla wa man qalla ismul mawsul dañ koy asaf léeg-léeg waxtaqi may sàkkoon naan alwabla tawa waame wattal ak taw bis wisal waa taalal te may sungale ko bi asa ci asa mooy xaj na wala àlla bëgg gu tat gu ma ci xamoon taxoon na lu waay màgg màgg màgg rek su ma gisee ne ku wax ak dara dana génn rek dana wax ak moom luñ ko naw naw ci xam-xam du ma ko ba wax ak su ni kii itam kuy doog dal la du ko am solo dëgg dëgg dëgg mm. du ma ko xeeb pour wax ak moom mm. jotaay xam-xam moom ñett la rek mm. benn danga wax ak ku la raw su ko defee muy istifaada ci yow jëriñu wala ngay wax ak ku raw muy ifaada jëriñee wala ngay wax ak ko tolloo muy mudakara loolu moo tax xam-xam amul diw sàngam ku rëy la duñ ci wax ak moom amul diw sàngam ku tuuti la duñ ci wax ak moom naka noonu itam foo xam ne mën naa faa xamee lu bari lu ruq daan naa ko àttana topp loo tolloog benn baatin nag daanuma ko xeeb daan na ma jaral jog danaa dema dem ba topp ak nit masala ba léegi-léegi moom daf ma wax nangam laa ko teg rek hmm. te nangam laa ko teg jooje dana ma doy lool bu hmm. kuntu nekkoon naa u baaxi su de gëstu anteel ku la man képp ku xam ne jàlla màgg na hmm. waqal la ak képp ku tuuti waa soo koy tamay sàkkoo naan aloom la taw ba wattal ak taw bi fisal waa taxalal tamay sungale ko bi ansa ci wa laal li farti laha ji ngir jéggi dayoog sopp hmm. dexti baasi yi ci juumu adab hmm. wattamee ak xamem fi taxamusi li hmm. ci mbubu ay kodayam falamma halaltu ba ma wàccee xulwaane xulwaan ba ma demee xulwaan waqat balawtu te mbiroom nattu naa alixwaane bokk yi dem fa baam fab diit hmm. xam seen nit ñi xam seen aada hmm. xam yi ñuy rëyal xam yi ñu tuutil hmm. xam yi ñuy nawee nit xam yi ñuy xeebee nit wa sabartu ma nattu alawsaane peese yi ma xam ñi fi am solo ñi jar seet bët ak ñi nga xam ni ku leen déglu ñu tardel la mooy xam naa fu waayi nit ñi wa xabartu ma xam maasaana la fa ñaaw hmm. yi fi nekk te jar bañ cee bokk hmm. wasaana ak la fa rafet hmm. wa ak yi xam ne ku ci mën a bokk bokk ci moo gën bi demee xulwaan ba nekk foofu diir xamee seen nit ñi nii xamee seen mbir nii alfaytu fekk naa bi haa ci xulwaan aba saydin asrojiya dama fekk abu serini saroni yataqallabu mu ngi jàllar beku fi qawalibil intisaab ci moolu waay askan yi moolu waay askanu yi xaalab mooy lu ñuy dara lu ñuy da génne melaw dara ni ngi keesu mool bi nga gis hmm. boo bëggee xogg suufum ni doon ni nga ko ciy dafa mel ni ku mën a doon nag fa mu juddoo fa mu bokk fa lañ ko moolee mm-hmm. abu seydin fekk naa ko fi tey mu bokk ci giir gi de mm-hmm. tey mu bokk ci giir gi de haya mm-hmm. taqallabu mu ngi jàllaleku fi qawalibil intisaab ci moolu waaye askanu yi bu teyee mu ne man ci diw laa bokk bu ëllëgee mu ne ci diw bokk wayax bitu te dana mu dajitu mooy làmbatu fi asalibil iktisaab ci yooni faggu yi ak bu ne itam mu ci pexee xam dara tey nga fekk ko ci lii ëllëg nga fekk ko ci ni daal laa boo sëriñ meloon loolu lay leeral mu ne fa yeddaxee dana mu woote taaratan jamono ne anna hoo naka moom min ali mu ngi bokk ci ñooñ saasaan mm-hmm. mooy buuri fursu yi ak kaafira yi mm-hmm. wayaatasi mu haskanu marratan ci beneen yoon mm-hmm. ilaa aqyaali xasaana jëm ci kàngamay xasaan yi mooy buuri saami dafay wax ne genn waar la moom sang piir la ci ay ñu foor la bokk ay buur waaye léeg-léeg nag dafa wax ne moom ci waa fursul la bokk ak kaafire yi ñoo day maamam léeg-léeg itam mu ne ci waa saam la bokk xasaasine yi ñoo day maamam hakaza kaana yataqallabu fi qawalibil intisaab nii daal la ko daal doxalee tey mu ne fii ëllëg mu ne fële waaye fu rëy nag lay dëkkale ko waaw wa dana mu génn tawran ci beneen jamono fi mm-hmm. siaari suara ci lambay wéykat yi mm-hmm. eh, léeg-léeg itam nag nga fekk mu xamee melow saxeer mm-hmm. seen mën a taxawaalu gi ak seen sañ wax gi waaw nga fekk mu mel noonu seen ñeme nit gi seen mën a taxawaalu gi seen sañ wax gi ndax jikko yu bon lañ xamee al kalbu wa fi rutbatin alayka anni lam akun saayira <laughs> al kalbu wa saayiru fi rutbatin duñ nit dara alayta anni lam akun saayira <laughs> wa yabrusu dana mu génn tawran ci beneen jamono fi siaari sonra ci làmbaay wéykat yi ci làmbaay wéykat yi léeg-léeg melo wéykat laa xamee waaw hmm. ah, seen solu hin beeg seen ñeme nit geeg seen mën a taxawaalu seen sañ wax gi hmm. léeg melo woowu lay xamee hmm. wayal bas dana mu hoddoo hinan ci beneen jamono kibral kubara réew way réelu yi léeneen dafay def gann diis gann mel ni ak borom palte kay waaw mel ni kuñ fal dara kay hmm. waaw waaye léppin nag hmm. pour xam dara rek hmm. waa kaza kaana yaxbitu fi asalibi liktisab léegi daal léeg-léeg dégg noonu rek waaw waaw fatan ala nafsihi min nafsihi rasadun waaw nit la koo xam ne sàllaaw boppam daal la yore boppam waaw fatan ala nafsihi min nafsihi rasadun hmm. ah, la boppam daal la yore boppam rasad saan la watan waaye la boo xam ne ala nafsihi nekk na ci bakkanam rasadun fuuglu min nafsihi waaw hmm. ah, fatan ala nafsihi min nafsihi rasadun waaw ah, de la wax yasudduhu an yatura sayna wazzama yasudduhu an yatura sayna wazzama hmm. wasaama sa mu del gu tooy del daal ak liib saa maskuma madhura aya sudduhoo dana ko tere aya taa aya tuura sayna hmm. mu ne taar beeg weegu gi salaw bu bu ne bu ne bu ne tëll génn danga foo ne gaynde weer ñoo dajee ci teg gi hmm. a ah, nu hiina yabdo hmm. an naqoola lahu ka anna fi farjihi badran wa dirhama da ngaa foog ne moom moom tagg woowu léeg-léeg bu hina yabdu an naqoola lahu ka anna fi sarjihi badran wa dirhama waaw la tar beeg wegu gi daal ak daraja jeeg wegu gi léeg-léeg bu ne da ngaa foog weer ñoo bokk nekk ci teg gi lan ngay foog daal lan badran wa dirhama dirham gaynde badran wa dirhama waaw luy mën a wax luy mën a wax seen ko baax a baax nga ne ko waaw koo xamul nu mu mel xamuloo koo koy dëkkale kooku noo koy ngëbee nag te yow li ko xam yaa ko seet nit la ko xam ne kenn mën na xam fu mu dëkk ndax du jaas du wax jenn wax nit la ko xam ne kenn mën na nu mel ndax du feeñee benn melo xool na ko ne di ngëbee mu ne dafa yor lu tax nit mënu ko mën waaw <laughs> bay da ànd na ko ndare naka moom nag maata la wune xaali yi ànd ak meloku mbiram ku ne xam ne neexut a xam wa tabayune mu xaali yi ak bir fenam ku ne xam ne day wax ñaari wax waaye loolu lépp teewul moom yettaxal laa dana mu takkaayoo biriwaa in ci taar dafa nekk nit ku neex a bëgg comme ñu amee daraja wari wayetin ak sole bëri ku bëri bëri ku bëri yum xam mu doon ku bëri yum xam yu mën a nettali yu am njëriñ wa mu daaratin ak masla mu doon ku ràññe àddina xam itam fu ñuy jaar ni almudaara mooy danga féq nit lii yow lay sa cër waaye mën nga ko bàyyi rek ndax nga de kii rafetal ci àndoo gi loolu mooy mudaara ci karam la bokk bokkul ak mudaahana mooy séq nit wóor na lii war la koo jël ci moom waaye danga ko nax nag ba jël ko te du ko yëg loolu moom baaxut moom mu ne ku am mudaara la wa diraayatin ak xam te itam dafa xam lool hmm. wa balaaxatin ak balaaxa rayaatin bu daaji yéeme hmm. te itam ku am balaaxa la hmm. waaw wax ju rafet te palaas rek da koo man lool wa badihatin ak juri mutawaatin bu daaji topp mooy fu wax jotee rek mën naa buur wax ci lu xilaat bu yàgg badiha mooy fu wax jotee rek mën nay buur wax ci lu xilaat bu yàgg dara wa adabin ak i adab baari atin yu de way kowe hmm. te lépp lu ñuy tuddee adab rek dajee kowe ni diggante wax ju rafet ak yeneen ak yeneen hmm. wa qadamin ak ndëggu faari atin bu daaji kowe hmm. li alaamil ulum ñaal euh, doji xam-xam yi mooy alami xam-xam yi te itam ñu fee tuddee ay boromi xam-xam ñëpp moo leen moom daal ak lu muy mel nii mel na le mm-hmm. ak lu muy wax lii tey beneen mu wax lële xam mm-hmm. na melokaan yoo xam ne kom mm-hmm. ne ci moom ku xam du la nangoo perte loolu fa kaana nekkoon li mahaasini alaati yi ngir rafetal ak ngir rafet ak jumtukaayam yul basu deefi jaxasoog moom xalaayeen la tiyi ànd ki ayibam donte borom ayib la jumtukaay yu rafet yim xam tax na ër bu ne mu di xam nit wa nekkoon na li saati riwaayati yi ngir yaatu soleem yus ba deefi sopp ilaaw eeti yi jëm ci gisam xam-xamam bu yaatu bëri yu waxam de daw dana tax lu la sonnal sonnal bu la joxee gannaaw yi da nga ko bëgg a gisaat yéeg ne soxla nga ko hmm. wa nekkoon na li saati riwaayati yi ngir yaatu soleem hmm. yus ba defi jeng defi sopp ilaaru yët yi jëm ci gisam hmm. wa nekkoon na li xilaabati aridati yi ngir huru jëg tontam li mel ni niir yurxa bu defi sit am muaradati yi ci gaarlante moom dal tontam gi hmm. nga xam ne bu tontoo kenn du xam fu muy waxee hmm. moo tax lu bari ci nit ñi dañuy moytu diit ko mbagg hmm. wala séq ak moom waxi tontuwante jamante wa nekkoon na li odobati iradi yi ngir neexal rotalam yusaafu déefi dimbale bi muradi yi ci lu ñu na moom xam ngum xam lu ñuy kàddoo jëmale ci nit tax na lu mu bëgg ci nit rek mu ne fa taallaqtu ma dal di hmm. bi aadaabi yi ci ay cémbaanam mooy ay lafitam hmm. man nag bi ma ko gisee mu mel nii hmm. dama nangoo doon kookam rek jàpp ko muy sama njati li xasa isi aadabi yi ngir jagle adabam ndax may yi ci moom te mu mën a nitel nit wanafastu ma gànjirante mooy ma jëkkalante hmm. fii musaafaati ci sallalante ak moom xarit hmm. ma ne man kenn du gën a déggoo ak moom hmm. waaw baax fexe ba déggoo moom danaa ko def li nafaisi sifaati ngir way foori meloom ndax moom nit moom dangaa gis ci moom lu jar ngëp dëgg ca loola ngëp ko melo yàlla neexul ci moom nga de ko muñ xànda hmm. moom ci loolu la mën a sottee hmm. waaye nit ko amul sikk moom xamul hmm. gannaaw gis naa ci moom lu jar ngëm nag ma dëgg ci loolu ngëm ko rek fa kuntu bihi ajloo humoomi wa ajtali zamaniya talqal wajhi multamia biya ara qurbahu qurba wa maanaahu xunyatan wa ruyatuhu riyan wa maxyaahu li xayaan fa kuntu nekkoon naa ajloo di huññee bii ci abu sayrin humoomi samay njàqare su ma dara jaaxalaan rek moom laa koy wax su ma ko waxee rek pare naa ca nag waajte lii may ci feeñalee zamaani ya sama jamono su ma demaan ba am gëg-gëg hmm. mbir moo xam na mu koy taxawoo hmm. rek moom lay la laaj hmm. mu giide ma talqal wasi daa ji tàlli ji xar kanam multami abdiya daa ji melxat ci leer moo tax sama nekk abu seyrin foofu ci wàlluwaan soo ma gisee màndargam kontaan rek nga ci man màndargam xel mu dal rek nga ci man talqal waji daa ji tàll ji xar kanam multami adiya daa ji melxat ci leer ara danaa gis woo jegeem xurba muy muy askan gi ma dend ak dafa tax man doxatuma jàmbur fenn dafa mel ni fi dëkk wa max naa bu may gis wàccu waayam waxoon yatan muy koom mais gi ma nekk ci barab su ma lépp da dew dafa tax mu mel ni man am naa lu ne waru yetuhoo gisam riyan muy màndi lim doon ko xam ne foo ko gisee rek da nga mu defee nu la gindi ci mbir xëllëg dafa tax gis gi man njàng la ci man wa max yaawu may gis dundam xayan muy kem taw ni ñaan dundam daal sama njëriñ ànd nañ ànd goo xam ne amal na ma njëriñ wala bis naa ñu sax ala dalika ci loolu hmm. burhatan ab diig hmm. loolu hande nañ ko ab diig hmm. yoon si u dana sos lii ñaal ma dana mu sos lii ñaal ma ku la yow min ci bépp bis nu saatan am maana di bu set rek dana am xam-xam bu bees bu ma jox wayadra u dana jañ han xal bi ci sama xol subhatan ab lënd mbir bu set itam danaa mbir mu mahee moo xam ne bu du doon xeeteem mën na fee naw li lañ bokkee nekk ilaa an jadahat ba jaxase la hoo ñaal ko yeddul imlaaqi loxol ñàkk kaasal firaaqi kaasab tàggaloo ñu dem dem ba ca kanam jamono nekkoon dikk mbiram hmm. la newoon ci loxoom ne atu ca hmm. loolu ñu naan alfaqru gaar ko hmm. te kum songa daane la faxalabtu kulla baliyatin faxalabtuha musiba wu ne xeex naa ak moom gañe ko wal faqru xaalabani fa asbaha xaalibi ay ñàkk moom bañ songooyee daf ma gañe hmm. ndax si góor xamul bàyyi li war a def hmm. xamul def itam lu mu war ko def hmm. te ñaar yi lu mu ci a doon ñàkk da koy waral loolu moo tax léegi nag ñàkk dikk mënatu koo toogaale te dut ku ma mën a yóbbuwaale loolu waral tàggaloo duñ waa xaraaku xiir mm-hmm. ko xaddamul xaraaqi ñàkk seeñu mm-hmm. bi tasliqil xaraaqi ci façon xaraaq mm-hmm. mu gis ne daal gannaaw xaraaq gi la xamatu fi dara daal moom dafiy jóge wala fatat fu sànni ko maawisul irfaaq jëfeñ ak ndimbal illa mafawisil afaaq jëm ci xàlli gox mooy ñàkk daal tax na ko génne dëkk bi maanaam i menn la andi gi mu koy andi ci ay xebaaraat yu wuutee dafa jural nit ki mu riis ci luxa rek wa nazama hoo nas ko xufuuq rayatil ixfaaq fir firig dara koo ñàkk fi silkir rifaaq ci buum setti si muy buum tukkikat yi léegi daal amatul lu mu fi toogee kon il faut mu génn te man duma ku mën a ànd ak moom li mu jur tàggaloo suñ diggante fa saxaada mu dal di daas mooy mu nàmm li rexlate ngir laxas reraara asmati yee ñëw ak dogum booba la dogu ne dëkk bi daal gannaaw nii la demee man dama fi bàyyi wasaana mu dal di laxas yaxtaadu mbir moom dana muhammad al qalba sama xol qalbi la damir bi al dafa wuutu bi azimatihi ci noskaam mu dem xam naa sama jëmm la fi bàyyi waaye xaw na yóbbu haale sama xol daanaka insaan bila qalbin la fa maa raaqani man laaqani baada budihi wala saaqani man saaqani li wisaalihi wala lahali musnada nidun li fadlihi wala doo xilaalin xasa misla xilaalihi mu ne fa maa raaqani xéemuloo hut ma man koo xam ne laaqani haju na ma mooy tëq na ma baax da bonti ci gannaaw sori abu sori ba ne ba sori ma nit ko xam ne naw naa ko hmm. ba man ko tolleeg abu seydin hmm. loolu gisuma ko fenn hmm. wala saaqanii soppaloo xudma man ko xam ne saaqanii màng na ma li wisaalihi ci jokkoog moom jëm ci jokkoog moom wala nit koo xam ne mu may ñoddi ci boppam ma gis ci moom lu tax nim si bi mu am ci abu seydin ma ko ci moom loolu am wala laaxa feeñut lii ñaxal ma mus mm-hmm. nadda waxtu wam demee mm-hmm. nit dun kem li fadli yi ci ngëneelam mm-hmm. xam-xam bi ma gis ak nite gi ma gis ci abu seydin ba ma joxee gannaaw ba léegi gisuma ko ci kenn nit wala soo xilaa leen dét borom ak xaritoo xaasa di làq mis la xilaa lii kem ji koy abu seydin amul benn xarit. man hmm. ay jikkoom dafa day xeeti jinaas. gis hmm. hmm. nga raaq nii laaq nii. ñoo jinaasul mudaari am mooy ci jinaas muharraf mooy ci am tomb rek moo leen xaajale. saaqa nii saaqa nii jinaas musahab. waaw tomb rek moo leen xaajale baax de bon de masque moo leen xaajale. mus nadda niddun jinaas muharraf. wala soo xilaalin xaasa misla xilaali xilaal xilaal jinaas tam jinaas bu ñu ko waxee ci diggante ay baat muy ni doo jàngin te wutee maana waaw ni doo jàngin te wutee maana waaw dina bu baax a baax yaa saawiyan fi maxsarin qad istaala binaarihim yow mi nekk ci mbooloo in tabki min siraarihim ala yaday siraarihim waa in tabki booy jooy min siraarihim ci seeni njarmeent hmm. ala yaday siraarihim ca loxoy seen ñu bon ña hmm. aw turma min ahjaarihim hmm. wala ñii la sànni seeni doj wa anta fi ahjaarihim te yaa ngi ci seen peggi néeg ya fa ma baqiita jaarahum fa fi hawaahum jaarihim fa ma baqiita jaarahum fi hawaahum jaarihim wa ardihim fi ardihim wa ardihim gërëm looleen fi ardihim wa daarihim fi daarihim wa daarihim wa daarante nañ fi daarihim seen kër loolu moo tudd jinaas dégg nga sell nga ko baax a wax loolu nag moo am fii mu ne wa tasarrab mu nëbbu an ni ci man hiinaan ab diir mooy diir bu yàgg yàgg mm-hmm. nëbb na ko ci man mm-hmm. la aarifu den may xam la hoo ñaal ko harinan gol mm-hmm. xamul fu nekk ci àddina wala ajur den may fekk mu beneen aji biran xanu ci moom kenn ku ma jox ci moom benn xam-xam daal xaw ku ma ne dégg naa ko barab sàngam wala mos naa dajeeg moom barab sàngam loolu daal xaw ma dama doxoon ba àgg xulwaan hmm. moom itam mu dox ba àgg fa ñu dajee fa hmm. léegi nag man ma ñib si wala maa ubtu bi ma wëññeekoo nag hmm. min xurbati tukkee ci sama tumaranke ila mambiti sonbati jëm ci saxuwaay sama cël son mooy fi yoon di faqee foofu xadartu teewee naa daara kutubi ak kër ak téeréem yi mooy kër ak téere ak soxbat am kër goo xam ne kër ak téere cosaan la hmm. dama fa dem allati kër ak téere ga nga xam ne hiya moom hmm. muntadal mutaaddibiina mooy penc waaye borom xelmul adab yi hmm. léeg-léeg suñ bëgg def ay daje yi waxtaane xam-xam foofu lañ koy defee wa multaqal qaatiniin mooy daje waaye wéy sax yi minum ci ñoom muy ñun ñi fi dëkk mm-hmm. wal mutaxarribin ak way tumaranke yi mm-hmm. walla gan gu ñaam bëgg séq ak moom loolu mm-hmm. wala gan gu fi ñëw bëgg séq ak ñun loolu foofu daal dajeekaay la pour waxtaanee xam-xam ma dem fa fa daxala dal di tàbbisi soo lexyatin borom sikkiñ kësatin bu daa ji tal foofu rek benn borom sikkiñ bu tal dal di ñëw waay atin ak melo rafetin wuraaji héeme wuraaji rab hmm. waay atin ak melo rafetin wuraaji rab hmm. mu xame melo rab itam hmm. fa sallama mun na yu halal jullaafi ci way jékki yi du ñëwee mu ne asalaamaaleykum wa jalasa mu jékki fi uxrayaati naasi ci mujj nit ñi bi jotaay bi ñëwee itam fi nit ñi xem rek fi la toog ci pegg bi nanguwul xuus hmm. kàddu gi ak su ci moom hmm. su ma axada mu xaraf yu dii di feeñal hmm. maa li nga xam ne fii bi taabi yi nekk na ci gafakaam mu tàmbali waxtaanee xam-xam yi mu yor ndax jataay bi pour loolu la ku kàddu gi ak su ci yow rek dun ngay def bu yoon jibu te muy xéemuloo alxadirina way teew yi bi faslu xitaab yi ci faslu xitaabam hmm. faslu xitaab bi ko yàlla defal ñëpp yemu ci hmm. feeñal ak fasaaxa hmm. am na ñu ne mooy amma baadu ñenn ñi dañ doo wax sahbaan waaye il moo ko jëkk wax ñenn ñi neen yàlla Daawud ñeneen wax leneen waaye lu mën a xew fasaaxa gu feeñ ci kàddu daal loolu moo am fa qaala mu wax li man ñaal ki nga xam ne yelihi dana ko méng ci loolu lay waxee kim dend ne ko maa ana alkitaabu mooy téere mm-hmm. alladi bi nga xam ne tanduru da xool fii ci moom mm-hmm. wax kim dend nag waaye yow téere bi nga yër nii buum la mm-hmm. fa qaal mu ne ko diwaan abi obadata diwaanam abu obadata la muy muslim ibnul walid al buhturi mu ngi bokk ci suhara dawlatil abbasiya hmm. moom la ñuy wax alwasaaful hmm. moo tudd saayiru tarafi hmm. mooy borom diwaan bu la ku xam ne ku jaxasoo woon ak mutawakkil alallah la tagg na yu bari mutawakkil jox na june diwaanam ay tagg moo ci bari ndax li ci dundam jaxasoo buur yi di leen tàgg ñi ko def jox alal hmm. loolu la doon def moo taxoon dut ko bëri tumaranke àddina moom buur tur yi hmm. ku ràññee la nag ci wasfu hmm. lool lool lool ku ko mën a mën a man la su fekkoon xasiidam boobu muy mellale iwaanu kisra rek la woy ci wasfu sax kon doy naa mooy suntu nafsi amma yudannisu nafsi wa tarafaatu an jadaa kulli jibsi xasida bu yéeme la iwan kisaar la ci mellal tagg na mutawakkil ala laa tagg yu bare bare bare bari bokk na ci xasida boobu muy ko mel muy ko ndokkeelee ci julli korite ga naan bil birri sumta wa anta afdalu saimin wa bi sunnatillahi radiyati tuftiru boo mm-hmm. toppee qasida ba dangis ma falawan ne mustaqan takallafa fawqa ma mm-hmm. fi wusan yi la saa ilaykal mimbaru mm-hmm. mu ne sa solu bi mimbar bi yàkkamte ne nga toog ci kaw su fekkoon na mel dana tax def luñ mënul am kon bala ngaa dem fa ngay xutba mimbar bi fekk si la far waaw falaw anna mustaqan takallafa fawqa ma fi wusahi la saa ilayka alminbaru gis nga ko bu baax a baax muslim ibnul walid waaw sëriñ taalibe abu tamam la ci wëy waaye kenn la nag ci sëriñi mutanabi yi ñoom ñett ñooñu lañ mos di lënkale naka jekk hmm. mos naa am benn adib buñ laajoon ñett ñooñu ku ci dàqaawu yi hmm. mu ne abu tamaam ak abu tayibil mutanabi ñaari hakim lañ hmm. saayir bi dëgg-dëgg buxtu yi <laughs> ah, almasuud ka de ku ñu seedeel la hoo ñaal ko bil ijaadati ci rafetal mm-hmm. diwaan abi ubaadata mi ñëpp nangul la xam mm-hmm. diwaan bi bu rëy la selum mm-hmm. ku baax a baax fa qaal mu wax mu ne ko hal hasarta ndax fakkatal nga yëg nga gis nga la hoo ñaal buxturi fii maa ci li nga xam ne lamaxtahoo gendeeku nga ko ji ala badiin ci badia mooy lu héeme mm. istam laxtawoo loolu xorom lu nga ko rafet lu nga ko mm. mu ne ko waaw est-ce que li nga ci jotaguma liir mm. ah, gis nga ci lu xam ne héem na la qaal waa ji ne ko naam waaw gis naa ko ci qawluhu mooy waxam jim ne ka annama tabsimu an lu lu in munadadin aw baradin aw aqaa boobu soreegul ndax boo jàng diwaan bi bala nga sori ci diwaan bi da nga gis xasida bi diwaanul Buusturi wa gis naa ko amee woon naa ko diir bu yàgg ko seet boobu waa ji mu ngi jàng téere bi soreegul ndax li soreegul ci diwaan bi dëgg-dëgg waaw boo demee sëriis yi ka annama yëpp si mu la bind man diwaanul Buusturi bi ma gis ka annama yat xakku la bind ka annama yadhaku an lu'lu'in munadamin aw baradin aw aqaa man loolu la bind dégg nga waaye loolu ay riwaayaat la yoo xam ne du teere liñ soxla man na ciy amee kim bokkat de naan sàngaraam ci guddi gi lay wax ne ka annama tabsimu daanaka dana muuñ an lu'lu'in ci wurusu luulu munadadin wade wuñ rangale kale ne ka annama yadhaku an lu'lu'in munadamin hmm. aw baradin wala barat hmm. dara la lu weex tàll ñii ko nidalee ak réew waay bu rafet hmm. aw aqaahin wala aqaah gàncax la xam nañu koy firee jaatoor waaye dafa ne gàncax gu weex tàll ñii ko nidalee bañu reexuwaay ci buñ ko rafetlu mu ne waa ji bu muuñee hmm. muuñu waay bi kem liy feeñ ci bañ yi nim rafetee bi wax tall hmm. dafa mel ni wurusu luulu hmm. lañ rangale ci gémmiñ gi wala feppi loolu ñuy wax barat wala gàncax googu ñuy wax aqaa xam nga mel ni mbir la mooy maximum nadimi muuñu waay kim bokkal denaan moom kenn moo ni du lu lu hmm. ni du barab hmm. ni du aqaa léegi nag menn mbir hmm. nga fexe ba nidale koog ay mbir moom la tuddee at tasbihul jaamia borom bayaan da ko rafetlu ndax loolu ñaare ku bëri yum xam moo ko man te moo am ci wéy mu ne ko fa innahu bu tur yi ab daa dikkee na kéemal bi tasbihi ci nidale al moo daax ba de bu ñu dénk fii ci way wi hmm. mu ne ko xam nga tasbihu bi borom balaaxa bu ne rafetlu na ko tasbihun jaamia la hmm. eh, li moo tax way wi neex ma hmm. ki yor téere bi moom lii la ko naq dum jox nii la gisee way bi borom sikkiñ bi moo laaj fa qaala borom sikkiñ bi daal di wax la hoo ñaal ko ne ko yaa lal ajab eh, ndaw kéebaan maa mu naa daa su fekkee taajub moo tax dañ ko jar bi lamin maktuha yaa lal ajabi ndaw kéemaan wali dayaatil adabi ak sànku adab jàng amatul laqad istasmanta wallahi duubloo nga yaa hada e yow sawara min borom néewi yow da ngaa gis lu lu duuf ni dooga ca kaw taxul muy benn de soo leen defee benn rek juum nga de waaw wa nafaxta wal nga fi xëy daramin ci fu dul tàkka-tàkka ne na nga bu buy boy nekku fi lu hupp hupp du am safara yow fi ngay xoolee sew sewu balaaxa sew sewu balaaxa nekku ayna anta ana yow benal bayti ci wëy al nadri bu ji tumaranke muy wudaaji néew hmm. aljaamion wudaaji boole hmm. musabahaati saxri yu ñu nidale reexuwaay hmm. mu ne ko araab yi muy nidale reexuwaay bu rafet juróomi mbir la way wi ngay xiim ñett la ci indi nga naan tasbihun jaamia tasbihun jaamia tasbihun jaamia boo gisoon way wu dajale juróomi nooy def waan sadam mu sadd ba mu ko defee mu sadd nag moom borom sikkin bi ne nafsil fidaau li saxarin raaqa mabsimuhoo wasaanahoo sanabun naahika min sanabi yaftarnu an lulu in rabbin wa an baradin wa an aqaahin wa an talahin wa an hababi nafsil fidaau tamhid la mu ne nafsi sama bakkan alfidaau yal na day njot Mm-hmm. li saxrin ñaal reew waay boo xam ne raaxa yéeme na mm-hmm. mab si mu hoo muuñu waayam mm-hmm. suma bakkan maa ngi jotee reew waay bu yéeme yal na doon jotam arab da ko wax ci lu mu fonk dal yal na yem ci man wasaana hoo tarafetal ko sana bun sewag bëñ naa ka na la min sana bin ci sewag bëñ rew waaye boo xam ne bëñ yu sew moo ko taaral mm. yaftaru dana mu muuñ mm. an lulluin ci wursu luulu mm. rabbin gudaaji tooy bu muuñee day mel ni luulu bu tooy la muy benn ci yebbu turi indi woon mu ak ci bara muy bu ñaareel ci bu ñetteel bu foofu la yemoon waan taleen ak ci pelaxu tàndal waan xababin bi na puurim mu indi na ñaar yoo xam ne buuturi indi goo te sànqer bi mu kéem mu doon yem bay buuturi bi naan tasbihun jaamia la tasbihun jaamia la te musabbahaat soxre nekk juróom ki indi juróomi kële ñett rek ñu ko ah <laughs> mu ne fastajaadahu rafetlu wéy wi man xadara ñi teew ñi teew ñëpp nangu ne wéy bi rafet na hmm. ndax dëgg moom dëgg la rek te ay boromi xam-xam ñoo fi nekk hmm. wastax laahu te ñu neexlu ko hmm. ñoom ñëpp ñu gis ne wéy wi neex na wastaxaadahoo ñi sàkku koo baamu min hu ci ñoom ñu ne ko waxaat ko pour ñu bind ko wastam laahu te ñu fite ko pour mu defal ko imla wasu ila lajees ko li man kan la ñeexal haadal bayit wi la wëy ñu laaj ko nag wëy wii ku ko wëy waa xayu ndax aji dund la xaayiloo aji waxam aw mayit wala aji dee ndax ki ko mu ngi dund wala dundatul al muasaratu tamnaul munasara bokk jamono léeg-léeg mm-hmm. dafa bëri lu muy nëbb mm-hmm. su ca dend jataay xamee mm-hmm. nëbb ga rawati moom moom lañ ko déggee waaye jombale nañ ko wéy waaw ki ko wéy mu ngi fi mu ngi fi ne woo fi moom la ñooy laaj waaye moom xalaatuñ sax ne moom war na koo mën a wéy waaw loolu lañ ko laaj fa qaala mu ne leen nag ay mullaahi ngëñal yàlla mooy sama ngiñ li may jëkk rek mooy giñ lal xaqu dëgg a xaqu mooy xeyoo ayu tabaa bu toppeesal ko boo demee bay nangu nangu rek dëgg ak kum mën a baxoo mooy li jar nangu wala sit ku dëgg xaqiqoon aji xeyoo la bi ayu tamaa ci bu dégloo sat ki lay waxal te fenalu la déglu ko ndax ci moom ngay déggee dëgg ak kum mën a doon rek danaa hoo way bi yaa qawmi yéen samay bokk li na ji kum ñaan na aji déyale seen moo dil yow mi diiru tey seen gan gi ngeen di waxtaan ak tey tey daal mm-hmm. mooy borom gi qaala xaaris ne na fakk annal jamaata daanaka mbooloo mi nag irtaaba sikk na bi aswatihi ci haskanoo gim haskanoo wéy wi wa abatte mu bañ sax di xadian watihi dëggal xooteem mel ni gaañu daal dañ ko def gëm ci li wax ne moo ko wéy fa tawajjasa mu dal di yar gent muy mu garment maa li nga xam ne haja sa rot na fi afkaarihim ci seeni xilaat wa fatana te mu xam lima la nga xam ne batana biiru na ministin kaarihim ci seen ak weddi gisin bu baax a baax nga borom xel te ñaare yenn mbir yi li ci biir waxaa dara mu wattande ko ay yabruta bu rawat ilay jëm coom dëmmun ŋàññi aw yalhaqahu aw yalhaqahu yafruta lañ ko waati wala yëg ko was mun te yibal mu ragal noppi ko noonu nit ñi jëm ko baat tasaaroo buñ tasaaroo yi fa qaraa mu jàng inna baada zanni ismun kon ñi jàng loolu ba beneen fa qaraa mu jàng ne inna baada zanni njort yu bëri baada bi maanaam kasiir ah inna ba'da zanni njort yu bëri ismun bakkan la ah, waaw njort yu bëri baaxul waaw ah, gis nga ah, baax ijtanibu kasiran mina zanni inna ba'da zanni njort yu bëri ismun na bi bu ko defee wuyu doo kuri bi mooy ka annama yorsimu in wayam wi gaañi weddi ko mooy waral ñu indi woyu imtihaanu boo xam ne hari woy xam na ne gaa ñi gëmuñu ko rafetuñ ci moom mooy leen nag njort yu bëri na baaxut su ma xaala mu wax mu wax ne yaaruwaatal xarir yéen wéyu solo yi wéy yi hmm. yéen ñi nga xam ne lu bari ngeen mokkal ci wéy hmm. xam ne bu ngeen bëgg a nattu nit hmm. xam ngeen lu ngeen koy nattoo wa usaatal xawli te daway garbal wax almarida ju daa ji xob yéen ñi nga xam ne ñu man affaire naq du ngeen ci wax xam ngeen ñi lu ci wax hmm. xam ngeen ñoo ñaawlu ci wax hmm. inna xulaasatal jawhari hmm. naga sell ak wurus tabaru dana mu peñee bi sabki ci togg wurus bala ngaa xam rax naam raxu danga xelli waaye gis ko nii rek xelli xoo ko natt xoo ko nen naan rax naa kooku du àtte bu tegee ci xam nit ki bala nga ko xeeyale dara wala jombale dara da nga war a jaxasoo moom loo xamee mustawa am waaw nga baax parce que bala nga ko xeeyale dara jombale dara hmm. da nga war a jaxasoo moom loo xamee mustawa am hmm. inna xulaasatal jawhari mm-hmm. naga sell ak wurus mm-hmm. tadharu dana mu feeñee bi sabki ci togg mm-hmm. waaye dal xaqi te loxol dëgg tas dama dana mu xotti li daa sëkki lambay sikk te dëgg itam fu mu gaaree rek caxaan dana ki tuddoo xam-xam te xamu ko soo ko gaaralee loo xam ne si xam-xam lay sottee hmm. rek lottam dana feeñ hmm. <coughs> rek lottam dana feeñ hmm. kon man li wax bu newul ci man war ngeen ko mën a lijjanti waxat xiila te waxees na fii maa ci li nga xam ne xabara wéy na mu mina samaani ci jamono mu ne te arab waxoon na ci léeb bu yàgg ne indal imtihaan yukramu rajul aw yuhaan indal imtihaan fa nattu yukramu la defi teral ar rajulu waay aw yuhaan walla defi ko doxadal nit daal nga fonk ko te fonk ko tegee ci fonk nga tegee ci yoon da nga ko war a nattu ba xam ne lu jar fonk ne ci moom nit tam nga def gorojal te goro jar ga tegee ci yoon mm. da ko war a natt xam ne du gis dara mm. wala waaye bu ko duur rek mm-hmm. fonkeel gu tegee ci fuñ xamul la mm. goro jar gu tegee ci fuñ xamul la indal imtihaani fa nattu mm-hmm. yukram la deefi teral arrajulu waaye aw yohan wala ko wala deefi ko doxaadal laa tam daxan namraan xataa tujarribahu wala tazummannahu min gayri tajdibi ah ñoom da nga ko war a nattu rek ah la tamdaxanna mraan hatta tujarribahu wala tazummannahu min gayri tajdibi ala dala waa ana man nag qad harabtu gaaral naa xabiati sama ndaxañ téef lil ixtibaari ngir nattu man na su fekkee nattu ma mu ngi seen xel man pare naa waxaratu gaaral naa xaqibati sama gafaka alal itibaari ci xalam tey doon lu ngeen a bëgg na rek man pare naa pour liggéey looji sama xel xëy na yàkkamti ñu ne foon nañoo dégg lii fabta dara dal di jàkkalante ca saasa ba mooy daane kay la am ku tontu xëy na yàkkamte woon nañ lii fabta dara dal di jàkkalante ahadu man lenn ñaaña hadara teew kenn ca ña teew moo jàkkalante gaaw tontu wa qaala mu ne ko arifu danaa xam baytan woy wu xam ne lam yun sajra beeful ala min walihi ci huufum mooy ràbbeekaayam wala samahat te tabeexul xarihatun menn xel du misaalihi ci kem léegi gannaaw noonu nga waxee man ci biir li ma jàng ci adabul arabi yi gis naa woy woo xam ne dafa mel ni udaba yi def ko muharada def arifu danaa xam baytan way wu xam ne lam yun saj rabbeesul hmm. ala min walihi ci huufum hmm. rabbkat yi ñoo koy xamee hmm. wala sama tabeewul xarixatun menn bi misalihi ci kemam fa in asarta boo tànnee ixtilaabal xolo bi jéngal xol yi fanzir na nga wéy ala hadal uslub ci bi lay yoon hmm. et soo bëggee ñu gëm la nag hmm. wéyee ci waaw hmm. yow waa sada waa ji ji dal di sadd bu mu ko wii ne fa am tarat lulu an min narjisin wasaqat wardan waa daf'alan wa naam bil baladi maanaam istihaara mooy jël mbir tuddee ko lëm ni doot mu ngi bokk ci waxi ni balaaxa way wi na dafa fees dell ak istihaara yi muy lim yëpp ci la ko waxee loolu mooy lañ ca rafetlu du wayu Hariri yi ki ko wayu mooy abul farid al waa ak Dimisqi xasal itam ci lay wax dafa wax ne insiyatun law badat lissamsi ma taluhat linnadirina walam taxrub ala ahadi mu ne nit la de waaye su fekkoon feeñu na jant bi jant bi du ñemee fenkandoor ak moom ndig taaram bi waaye itam nag du ko mën a jox gannaaw du mën a soow insiyatun law badat li samsi ma taluat li nadirina walam taxrib ala ahadi mu ne qaalat wa qad fatakat fiina lawaxiduha mu ne daf daf dañ ko ne jàkk rek xam si ñun ñu xam ne jot nañoo dee ndax attanuñ taaram bi léegi nag taaram bi rey gim rey ñenn ci ñun ci la waxee ne ma in ara liqati lil xubbi min qawadi mu ne ndeysaan cobel kum de kum rey day nii du am fayu du am diya mu ne loolu la wax insiyatun law badat li samsi ma taluat linnadirina walam taaruf ala ahadi qalat waqad fatakat fina lawahiduha ma in ara liqati lil xubbi min qawadi yoon wey ne qulna waqad xatakat fiina lawahiduha hmm. kamsa amaliqati lil hubbi min xawadi futeeg hmm. ay riwaayaat hmm. la rek mu ne daf ñu ne jàkk rek taaram bi nim demee am ci ñun ñu ko àttanul ba jota dee bu ñooñu dee nag mu ne ndeysaan cofel kum rey day nii du am fayu du am diya loolu la wax fa am tarat mu dal taw nag lii la wax ay jooy la ko boole fa am tarat mu taw loolu an rongañ bu mel ni loolu boo gisee fi muy jooy rongañ du muy génn comme bu rusu loolu mais narjasin tukkee ci bët bu mel ni narjas mhm. rongañ bi bët bi muy génnee boo ko xoolee comme gàncaxu narjas wasaqat mu nandal wardan lex bu xonqee ni ward hmm. rongañ bi lex bi muy jaar di ko tooyal hmm. dafa xonq comme couleur boobu ñuy wax ward hmm. waxadat mu màtte bil baradi ba ñu mel ni barat alors naa bi ca baaraam bi mel ni xenat muy màtt baaraam bi ba ñuy màtt baaraam bi comme barat la te itam baaraam yi muy màtt comme xenat la istihaaram niñ ko rafetloo ci mm-hmm. wax ak wéy wi niñ feesee dell ak istihaara mm-hmm. mbir la moo xam ne yéem na bindkat yi mm-hmm. yéem na ñi ci adabul arab yi bañ gis ne tuuti muy moo gisa toppandoo ko xaw na itam léegi soo bëggee ñu gëm la ah wéyal suus la koy waa ngi wax fa am tarat mu taw loolu an rongañ bu mel ni wurusu loolu min mm-hmm. narjasin tukkee ci bët bu mel ni narjas mm-hmm. wasaqat mu nandal wardan lex bu xonqee ni ward mm-hmm. waadat mu matt alal onnaabi ci ay baram yu mel ni xenab bil baradi ci bañ yu mel ni barat rongañ bi tuddee loolu bët bi narjas lex bi ward hmm. baram hmm. bi xenaf bañ yi baram mu ne falam yëkkun nekkut ilaa kalam xil basar hmm. ndara kem gendeeku gis mooy xafa xippi aw walla li fi nekk sax wu ma moo gën a jege mu ne kem xëf ak xippi daal toog walla lu gën a yàgg xataa am lu mooy mu sadd fa araba mu dikkee tumaranke bu gàtt lañ toog rek ki ñuy nattu dal de ki ñuy nattu andi way wi mu ne saaltuha xiina saarat nadwa burqoe halqaani wa idaa samee atyabal xabari fasasaat safaqan rasasana qamarin wa saqata lu'lu'an min xatimin atiri mu ne saaltuha laaj naa ko moom ndaw si xiina saarat waxtu wam nemmee koo nadoo burqoin a ñoori muraayam alqaani gudaaji arab dafa rafet lu xonq ci koddaay qaani xunu u mooy xonq lool de ahmar qaani lu xonq cot abyad naasix daa weex walla boog lu mel ne aswad qaatil asfar faaqeex ba mu xaar dara yaa la nekk alqaani gudaaji xonq wa idaa samee ak dénk sama dégg atyabal xabari gën jaay teyi solo gën neexi solo dam ma seet si mu dindi muuraayam bu xonq bi mm-hmm. yootal ma xibaar bu gën neex loolu laa ko wax parce que mu sori hmm. ay mu sori ma hmm. sabaqan mbir moom ni ra muraay gaa ngi mel ni safaq hmm. mu ne muraay gi ni mu xonqee comme niru safaq xasaa góog muur na sanaa xamarin leer ak cëlmay lu mel ni weer muraay gu xonq googu cëlmay li muy muur dafa leer comme weer wasaqatat mu rotal lu lu an kaddu gu mel ni wurusu hmm. luulu hmm. kaddu gi mu wax comme wurusu luulu la hmm. min xaatimin tukkee ji gémmiñ gi xolomee ni jaaru gémmiñ gi wax kaddu gi comme jaaru la atrin buraaji gattu dafa wax sabab mu jublu ci muuraay gi mu wax xamar mu jublu ci cëlmaay li mu wax luulu mu jublu ci kaddu gi mu wax mu jublu gémmiñ mm-hmm. kon istiaara xam na mm-hmm. su ko defee wéyu hariri yi nag moo mm-hmm. gën a rafet wéyu wa waa bi wa waa nag moo gën a riis ci istiaara waaye ñu ne hariri yi moo gën a rafet le lu tax mooy waa bi muy bi bala indi fa am tarat wéy wi mu defee tamhid dafa ne qaalat indi waqat fatakat fii naa lawahiduha mm-hmm. muy jumla intiradiya boo xam ne xam naa ciraam la ko indi waaye du lu ndaw si wax mm-hmm. mu ne ma in ara li qatilil xubbi min qawati mm-hmm. su ko defee maxki yu qaala doog a ñëw mu jël am tarab nag nga tif ko ci qaalat xaraf ko nga difaa mu ne qaalat fa am tarab boo seetloo jokkaloo bi ci diggante taabion bi ak matbuon bi jumla intiradiyya bi ci jaar def na ci suurewante tuuti def na ci nëbbu tuuti kii nag dafa sa al tuha muy fi'il bi xiina saara muy sarfu bokk ci bagage sa al nadwa burqoha muy mafoon bokk ci bagage saaltuha wa idaa asami hati bu ci mafoon yëpp bagage saaltuha la amul benn jumla intiradiya suba takkalantoon ni muy neex a gisee ci diggante sa saal ak fasa saaltuha ak neex a gisee ci diggante xaalat fa am tara te itam buñ hariri yu moom la wéyam gën a ànd ak bindareeb Hmm. parce que moom bi mu jëlee bay mellal hmm. dafa def tartib rek hmm. de wàcc de wàcc ba fu mu bëgg a taxawee rek mu taxaw ndax dafa indi muuraay muy li gën a kawe moom la tuddee safa mu indi cëlmaay muy wàcciti mu indi gémmiñ génne ci luulu génne ci xaatim taxaw dafa wàcc rek ba taxaw buy kii nag dafa dalay ci bët euh, tuddee génne ci rongoñ muy lu luwu mhm. génne ci narja mhm. mu wàcc si dikk ci war mhm. lex wàcc si dikk ci baaraami loxo dellu yéegaat dem ci guñ <laughs> loolu waaw noonu waaw noonu la waaw noonu la de waaw waaw dafay wàcce de wàcce de wàcce ba mel ni ku bëgg a daan suuf seetum nga bënduwaat ci kaw kii nag dafay wàccee sago rek bëgg a taxaw taxaw waaw moo tax moo tax bokkuñu waaye nag kii moo gën a riis nag ci istiaara waxal tur yi boo ci nekk waaye xam nga ñu xam wéy lay waxat mu ne fahaadara fahaada fahaara dal di gëlëm alhaadiroona way teew yi li badaatihi ngir jurim mooy nim gaawee ci wax ci lu xilaat ñëpp xéew waxtarafoo ñu tudd bi nasaahatihi ci sellam ñu ne ko ah yow kay doo sàcc yow xam nga loo doo sàcc ñëpp kontaan falamma anasa ba mu yégee nag istinasahum seen ak wéttale ko bi kalam yi ci waxam mm-hmm. bi mu gisee ne nag gaañu nag kontaan nañ nag waxam sax na leen nag mm-hmm. wan si baabahum ak seen ak jeng ila chan bi ikram yi jëm ci yoonu teralab mm-hmm. léegi daal ñu ngi ko bëgg a jàppee comme ab boroom xam-xam buñ fonk ba loolu amee atraqa sëgg na sanagal na ka tarfatil hayni kem xool ak bët dafa sëggaat diir bu gàtt hmm. su ma xaal topp mu ne wa doonakum jàpp leen baytay ñaari way aaxara ñu reñeneen hmm. mu ne yow dama leen koy buñaa xam naa bokku sax ci li ngeen doon laaj hmm. waaye dama leen koy may mu sadd mu wéy wa aqbalat yow ma jaddal baynu fi xulalin soodin taaddu banaanan naadimil hasiri hmm. fallaaha laylun hmm. ala subhin aqallahuma xusnun hmm. wa darrasatil billawra biddurari mu ne wa aqbalat jublu si na moom ndaw si yow ma jadda bis ba dëggoo ñu ngi dem daanaka rek wa aqbala jublu si na moom ndaw si yow ma jadda bis ba albaynu tàggaloo bi fii hullalin bi moom mooy nekk ci ay kodd ay ay complet ay ndobine soodin yu daway ñuul keru tàggaloo ba daal bi muy ñëw yére yu ñuul kukk daal moom la feeñe muy yére méttilu taxaddu mbiroom dana mu màtt banaana naadimi baaraamu aji rëccu hmm. alxasiri ku la takku ku la aji hmm. mu ngi matt baaraam bi hmm. mel ni ko am lu ko naqadi lu mën da kenn fa laaxa dal di feeñ laylun kawar gu ñuulee guddi ala subhin ci xarkanam bu leeree ni suba aqallahu ma xenu na leen yëkkati na xusnun taxawaay bu jege ni bànqaas hmm. wa darasat te mu màttee al billawra baaraam yu mel ni billawru hmm. bi durari ci bañ yu mel na ko wuru su durra hmm. istihaaraat yi xamoon ci wéyu waa wañ doon taxal muy juróom xam na ci wéyum yi te takkalantoo bi ci diggante ak xabalat ak laaha moo gën neex a gis takkalaatoo bi ci diggante xaaral ak fa am taraf hmm. kawar gi la jël tuddee ko guddi hmm. jël celmaay li tuddee ko suba hmm. jël taxawaay bi tuddee ko xusnu jël baaraam yi tuddee ko bi lawru jël bañ yi tuddee ko durra muy juróom yi ñaara naka mu amee woon ci wayu waawa waaye la daloon woowaa te mooy de wàcc ba ci kanam nga dellu buur héegaat mm. loolu moo ci am ndax dafa dalee ci kawaru bopp bi mm. wàcc si ci cëlmaay mm. wàcc si ci taxawaay wàcc si ci ba dellu héegaat dem ci fa hina isin ca boobale istisna yëkkati na alqawmu nit ñi qiimatahoo qiimaam wa taxsaroo te ñu bari lu diimatahoo taw waameem léegi nag bi mu ñaari wéy yii nag ñi naw ko lool daal gis adib dëgg ngi nii waaj ñu rafetal na suratahoo handoo xam moo ñu teral ko rek comme borom xam-xam bu rossi wa jëmmaloo ñu rafetal xisratahoo xollitam moo ñu jox ko yére yu rafet mu sol qaala wax na almuxbir aje xamle bi haadihi lxikayati ci bi la nettali ki nettali nettali bi muy xaaris nee na falamma raaytu ba ma gisee talahuba jadwatihi takk xalam takk safaraam mooy leeru cëlmaayam bireeku mm-hmm. cëlmaayam mm-hmm. wa taalluqa jalwati yi seen bu baax a baax wa taalluqa jalwati yi mm-hmm. ak melxatu xar kanamam bi ma gisee fireeku cëlmaay li ak melxatu cëlmaay li amantu jaaxal naa an nazara xool fi tawassum yi ci setan dama koy xoolal su fee xool xoolal ndax kii mos naa ko gisandi hmm. wa saraxtu ma wëral a tarfa gis hmm. fii mii sa mii ci màndargaam barab yi màndargaam waaw hmm. ah, may ko xool ci barab yi nga xam ne xëy na boo si xoole nit mën nga koo xam léegi daal ci mbetteel bu mu seexoon ak suñu góor gi la. ak sëro ji léegi suñu góor gi ak sëri ni sëro ji la. Hmm. ak mara timbiroom leer na. Hmm. lay loo guddim. Hmm. adda joo jiwe kay ko jug lëndëm. mooy bee jaaw. Ah, na. waa na tu ma ndokkeel. nafsi sama bakkan. bi mawridi ci mm-hmm. ma bëgg lool ci ñëw gém fi ñëw foofu dar ko ma jëkkalante mm-hmm. istilaama yeddi yi pon loxoom mm-hmm. ma jëkkalante nuyu ko wa qultu ma wax lahu ma ne ko ma ana lan alladi mooy li nga xam ne ahaala jàllar bi na musibataka sa melo xatta jahiltu ba ma réere man ak yow ni ma la xamee. lu waral nga soppeeku ba mënu ma la xam. waaye sëyin ana man mbir. sayabo bi jàlloon lexyataka sa sikkin. xataa an kaf ba ma fakk hilyataka sa takkay. ana lu waral nga bi jàll bi jàll ba mënu ma la xam. màggat ba mënu ma la illa boo fa ansa mu xarab yaqul muy wax ne waqun waqun sawa ibi sayya wa dahru binnaasi qulla in daana yowman li saxsin fa fi xadin yataxallab fala tasiq bi wamidin min barqihi fa wa xullab wasbir ida huwa adra bika alxutuba wa allab fama ala tibri aarun binnaari xiina yuqallab waxoon sawa i bi dalak yu jaxasoo yi te mooy xew-xewi jamono yi sa yeba moomu bi jawloo ay yi jaaxal nit te dëkk da dal ci suma kaw moomu yóbbee bi jaww yi wa daaru jamono xullabum jàllalu waa koon la binnaasi hmm. ak nit ñi hmm. jamono mooy koo xam ne du wenn melo wi hmm. mu la woon tey rek moom lay tray wee yow da la woon lii ëllëg mu wan nale dégg nga bu suufee moom jamono yow man bis li sax si ñaal jëmm sunu leen a jox na la një gis nga yomb yu bari man nga ko tey yu bari sa xel dal na ci fa bi ci ëllëg yettaxallab dana ko wutanam beneen bis loolu mu wanoon la démb moom lay nangu yu bari jafe yu bari jàmm fekk na moom nag hmm. jamono hmm. duut neexal kenn hmm. wala naqadal kenn def di soxlaam kenn bu baax baax dafa am yum làmboo rek yoo xam ne fay neex léeg-léeg su fekkee lool nga dajeeg moom léeg-léeg itam am yum làmboo yoo xam ne day tiis léeg-léeg hmm. soo dajeeg ñoom hmm. suba melokaanam rekk la hmm. mu ngi mel ni jeeneen rek léeg-léeg dalay indil ku la kontaan loo mel ni yaa ngi kontaan koo nim see gis mel ni yaa ngi kontaan mu indi la loo gis mel ni yaa ngi tiit jamono it noonu la suba jeeneen pour tiital la pour bégal la du moo tax léeg-léeg mooy indil ku mel ni bëggoon nga koo gis dug moo tax léeg-léeg mooy la indil koo xam ne ñeme ko koo gis mm. waaye nim melee rekk la mm. loolu moo tax loolu yow doo ko ca tagg mm. doo ko ca xas jamono yi noonu la rek addahru ka tayfi bu saahu wa an'amuhu min gayri qasdin fala tamdax wala talumi ah, jarul tagg jarul yedd waaw melokaanam rekk la waaye du affaire neexal kenn te lay wone lu neex wala métital kenn déedéet la déedéet addahru ka tayfi bu usaahu wa an'amuhu min gayri qasadin mhm. fala tamdah wala talumi gis nga ko baax fala tamdah wala talumi dégg nga mhm. yàlla bu mu mos a naqadi du ba faw yàlla bu mu mos a neexit nag lu tax mu naqari ba faw waaw loolu la demee la tas ali dëhra fii xamma yaksifuha falaw saalta dawaamal buusi lam yatumi waaw bu dikkee it yàlla bu mu yàlla bu mu mos a naqari du tee mu naqari de yàlla bu mu mos a neexit nag du tee mu mos a neex rek loolu daal la demee wala tasix bul di dëgërlu bi wa meedin ci mel xat min barqihi ci melax ak jamono foo mu xulla bun hurujal koon la lu mel ne as neex neex su gaaw nii rek bu la taxa fàtte yenn yi bu mu taxa biir àddina was biir te na ngay huwa boo xamee ne xiir na nga fi reale adra bi kër jeew alxutuba mbambari yi mooy mhm. mbiri diis yi wa àlla ba te mu dajale leen mhm. su la wanee neex neex mhm. dangay xam ne lii saxul nga téye ko ni ñu téye lu saxul mooy def ci lu baax balaa dem su la wanee métti métti danga xam ne saxul nga jànkuwante ni ñu jànkuwante comment la kii bi warul wurus. naa warul gàcce. yéen a yokkal ba mu waxtu waa dem na ko jàll bi. dinaa ci safara. wurus weñ tàngal da ko xelli. loola wàññatam ne wuja. déedéet. xeetu wurus ba mu doxoon. moom lay doon foor nga dara du ca wàññi. te nag dana jëlee taam. bu yokk xiimam. si gor yi nag jànkuwanteeg jafe-jafe jamono. du ko wàññi dara. dana dana ci jëlee nag mm-hmm. lu xam ne njëriñ la ay xam-xam yu mu xamu doon waaw jasallahu sadaida kulla xayrin mm-hmm. mm-hmm. araftu biha aduwi min sadiqi waaw jëlee ci muy jëlee na jasallahu sadaida kulla xayrin araftu biha aduwi min sadiqi ci li muy jëriñ la dégg su ma naxaada topp mu buur mu fariqan de aji tàggaloo moom di barabam muttasiban daraja àndaale ak xolima xolima ànd ak moom hmm. kon ñu jàng loolu hmm. mu dal de buur nag yóbbuwaale xol hmm. ah, yi yëpp ngi